danga am jafé jafé ci sa wàllub sëy danga tit ci soxna sin lay waja takal takkal ndax danga tit ci rapport bi ngay bëgg def ak sa soxna dama romba ti reccu la yi xati ñak la adresse ba ben la fallu dama ni koy waja mani lu tax ma naan mooy waaja maa xam sëriñ fallu kéemaan dama ni moo ñu ko sa bepp goor bu am jafé jafé ci walu sey boko sété danga bëgg lool dama ni am ca ñett yu wuté goor gu tëlee goor gu gu ndoxam wut mani goor gu awra am gàtt nag te bëgg mu gudd dama ni ça dépend bëgg mu toll Serigne Fallou Kéemaan jàppale la ci mani am na ca ñett yu wuute am na ci siro am na ci pëndëx am na itam bu nga xam ne saa soo ko diwee noo bëgg mu toll noonee lay toll rax ca dolli nag da koy gën a augmenté mani da koy gën a duufal lool Serigne Fallou Kéemaan mooy ki yàlla may ci wàllu kattan dama ni adresse ba benn la numéro téléphone ba di ñaar wooteel gaaw ci 77 274 29 48 77 274 29 48 wala nga def 76 540 58 88 76 540 58 88 dama ni boo ko rombee da nga sëggeem ndax wàllum kàttan moom kott la ko fi yàlla suñu.

mën na sax dem après màggal gi lépp loo xam ne si maanaam xew-xew la rek ak lu mu mën di doon jus Porokhane mën na ko gunge te lii dafa nekk lu bees parce que boo gisee tey boisson daanaka nit ñi ñu ngi koy naan bariwul te nit ñi dañoo soxla lu naturel moom moo tax nag euh, Porokhane innové lini nii en pack pack bo xam ci day am bisaab blanc am bisaab rouge am citron am tamarin am ananas li ci gëna neex nak mooy ananas citron loolu mom bu ko kenn sacc mbiru poroxaan mais dafa nek format conservable c'est-à-dire que produit mën yag yàgg durer xam nga produit citron yo ci gis wala produit melni mel euh, conservation bi du du yag mais li dang koy tek bu la neexee nii à l'air libre bàyyi ko fa mu def 1 mois 15 jours ça soo ko joxee sa gan day gëna neex mais goût du changer mais est-ce que sóoraale ngeen diabète gi bien sûr maam képp koo xam sa commande na ah sucré la ma defal sans sucre boutique de Khadim que dans la ville sainte de Touba. ban dëkk la nekk. dëkk ba lu ma waxati sax dëkk bi de moom xam naa sori na saña fóor yi daal lañ ma wax saña fóor yi lañ yàlla lu may def ba dem foofu daal moom ah nga def ko si yittee rek yow. yaa saña fóor yi la la wax. waaw saña fóor yi la nekkee. baax na yaay léegi nañu ah, dem xamatuma ci kii. waaw incha dana ci gën a waxtaan incha allah. waaw baax na soxna mu ndaw kon kayit bi nga lijjanti ko rek. waaw baax na incha allah léegi moom daf may envoyé ay documents rek. waaw baax na waaw incha dama bëgg ñu waxtaan sérieusement

bu ma ñëpp damee di ma wut ci ba di ma song sax yow la la en tout cas mhm. suñu ci ndal yi ba régal kol yi mhm. nañ ko santé katan gi biñu may suñu xel mëna dem ci marnan ba am katanu juk dem nani. Mhm. yaay du morom ta mo la def ki nga doon ya man awma sa fay xam nga tax awma sa fay moy complicité bi dox sama digënté ak yow lépp lu ma bëgg bëgg nga ko lépp lu ma neex neex na la lépp lu ma wax ne nga waaw lu ma jëf ne nga baax na lu ma moytu soril nga ma kon nag dinaa gëm na yaay du moroom ndax bu ñu nee yaay yaay yaay bantu ñett mbindum téere la xam na ne loolu ñu wax du asaar ndax njàngaleem diine la yonte bi bi ñu ko laajee kan moo la gënal yaay la wax ba muy ñetti yoon mm-hmm. kon ñun suñu amee ngor war na leen delloo seen ay cër li ma lay ñaanal mooy yàlla nga fi yàgg. amiin ah, ni nga ñaanal ma Jean. comme bi gën a yaatu. waaw ma gën la taxaw. dëgg la gën la teral. Mhm. un jour nag ma doon benn kilifa ku mag xam nga la mooy kilifa gi. Mhm. un jour ma toog nii yaay imaginaire ma toog ci lal bi nii ah, yaay. xaaral ma ubbeeku nii. sama xarit yi wër ma. je rêve ñu naan ma bul dóor bul saaga américain la ñu indi bul dóor bul saaga américain non yaay bés boobu noonu su ma geesoo seen la fële ngay natt pepp maag non xoolal damay kontaan. man ah. <laughs> après banaan leen eh bu leen tagg bàyyi ko saa ndaya ko liggéey wallaahi yaa liggéey lépp. billaay. en tout cas dal may may may ngi mom man mom sumay toxe yow damay beug ba nga xam ne ça veut dire li bëgg wax deug deug deug deug sax do ko xamati billaa wallahi taala man non la beugé ci yow ya. hmm ndax doon nga doom jo xam ne nga ma xamé nga sama naqar ak sama bànneex deug la yaangi def sa warugar bu baax baax baax baax ci la war ci ba mhm. moo tax samay ñaan fu mu toll ma ci sa kaw yow mo la xolé sax ba man maa ngi lay ñaanal xana bëgg nga aw ma dul yow ta bama la juré ba tay awma lu ma nakari ci yow ya ngi def lepp lo man ci bégal ma kon dama lay ñaan li ngay wax nii yàlla mottali ko jàmm wax deug yalla suma la gisé man mi kat suma la gis suma la gisé damay bég waye su woné gina damay wéet ay ay dom ñu nday jot tag dom ñu nday jot tag la wa yeen yi yi allah waye nak soxna ci ah. may ba xey rek nelaw ba doyal gesu rek ne ana kumba ñu ne ma ma man ca waañ ma ngi lay defaral ndékki ak ma ciy bég toog ba goro di defar ndékki fekk ma ak sama laal. Ah. foo ñëw leemal ma muy goro. su boobaa ay dara manqué wu ay mburoog am lan nga fiy demandé fii. yaa wax lii ay sur le plan. man du ma. xam naa la diw gi day bëri ci yow na lay defal ndàmbe ah. ah, yaa ngi yàq wax ci def. loolu <laughs> lañ demee. moom laa xam naa ne moom. Mm-hmm. yaa xam li nga bëgg na la ko yàlla defal. te li ngay yóotu yàlla nañ ci jot. foo bëgg a yegg yàlla na fa yàlla yeggal. bég naa ci yow daal. fi naa man li nit ñi wax ak a def ak yëpp naan mm. papis nii papis naa man sama yoon nekku ci. man daal ginnaaw maa ngi lay gis ngay ngay billi may billi. Mm. baax na. Ah, waaye nag alhamdulilah sant yàlla. mbaa yaa ngi julli bu baax a baax. julli. ah julli gi de moom. la ci bu baax. gis nga jullit julli lañ koy xàmmee. la. waaw xewuma demoon nag laajoo ma ca dara waaye wii xew neex. non man dama fàtte xam nga yaay maa xam ne yow xewoo dem toj nga woon du c'est la première fois nga toji xew man jëloo sax ma ne laaj ci xew. xam naa xew moo nekk baat dama bëggoon ñu waxtaan nag euh, waxtaanu xarit waxtaanu mbokk. waxtaanu ñaar nit ñuy ànd parce que tey boo xoolee li ñu dal metti na trop quoi mais dama bëgg nag nga bàyyi lépp loo jàppoon. parce que Nara mi ngi bëgg yàq suñu diggante quoi franchement jaru ko te fàttaliku ci ginnaaw lu nekk daj nañu. avant dara te doon dara ñu commencé nekk ci école yi di àndandoo ba émission bi tey yàlla di dogal lii mu dogal tey man àntaani moom quoi mais loo xam ne maa ko jël ngir def ko ndax dégg ma. pour yow mal entendre moo am suñu diggante yow Mara amoo fulla amoo fayda sa bopp yow warkat ka yow Mara yow lu tax doo rus. yow lu tax gàcce sonalu la du la diisal yow Mara workat nga est-ce que wax nañ la ko baaxoo guddi baaxoo bëccëg man li ma dugal ci yow sax moom laa xamul yow Mara war nga mu jëndee ak Naara ah Mara ak yow fi jaar yëpp hmm, nga ma jëndee beneen jigéen yow gorewoo yow baaxoo te tey jii nag yow yaa tax ma am sañ-sañ wax ne góor ñëpp ñoo bon. parce que dama jàppoon ne góor ñep ni yow lañ mel ta man may doon may doon def erreur yow ak ñëpp yéen a gis nga yow man nga tok téeméeri dimanche do ma dégg do ma gis té man na bañ yow ben man na baña def ben effet ci yow man timbit la même chose mais kon tay pourquoi pas ñu ñu su suma déplacer wo ñew da ngay xam kat man déplacer wu na ñew su ma toogee damay bañ nga jàpp ni kii kër li mu doon wax nekkutoon ci moom moo tax ma ne xaaral ma def sama devoir def acte de présence ñëw pour nga gis ma léegi nag donc lii ma la wax man mooy li nekk ci man su fekkee tamit ant antuwoo ko ah peut-être merci. gis nga yow Mara Mbaye man doo ñàkk ful la ñàkkaale ma ful la n'est-ce ñëw tey pour ñu waxtaan pour suñu relation continuer. Mhm. mun na nekk waaye lenn mooy tax mu nekk naara mi nga fat sa kër. damaa bëgg mu génn léegi léegi nii boo eggee boo bëggee suñu relation continue nda yow gis naa ne yow fu la nekkatul si yow depuis naara nekk dugg sa kër ba léegi. loolu mooy la. li nga dégg. yow man ak naara fi ñu jaar fépp Naaraa xamu fi kenn ma jël ko fat ko nga xëy benn bis ni ma génn ko. da jaar ak Naaraa foo jaarul ak man. mais yow yaa ngi sa kër. ok. donc moom da koy comprendre. Mara. xam nga lan la man sama wax ji mun boo bëggee suñu relation continuer wax naa la li ngay def pour mu continuer boo ko nga jug ngir yàlla bu ak ay wax. d'accord dégg naa la ko mën a génne. Eh, Mara bëgg a dee xamoo loo bëgg xamoo loo bañ la foo ñu forcer la rek pour ma mën a xam li nga bëgg a def. yaa ngi toog. yow nag da nga ñimi wi lool. <laughs> waaw ndaka coono yi nag. ça va mais dara méttiwul. la non xam nga man nag damay faral su ma reeree ba noppi. Mhm. soo ko génn doxantu xam nga bëccëg bi dafay xaw a tàng. en même temps xale yi. Mhm. des fois damay xaw di nëbbutu tuuti. <laughs> moo tax euh, su ma reeree rek lay am envie doxantu quoi euh, bi ma ñëwee ba tollu fii nag. sama xel nek ci yow mune na fi jaar pour gis la da nga bax rek gis na sa taxaway nit ku bax nga papa yow mo aw sa fay merci bu. Mhm. amo benen beut bo gis ci man budul papa papa dafa xaw magal xana xamu man xale bu ndaw la <laughs> ah sama papa nga nak hmm deug yàlla sama papa nga man nak suma ma mhm. nga di mo way benen turu budul papa comme <laughs> ah, comment baax ma wax tonton rek absolument <laughs> tonton bobu non mhm. daf may neex trop benen affaire dafa am Nara lan ngay xaar pour am jëkkër ah jëkkër moom xam naa yàlla moo ko tuddagul rek xam nga lu jot rek yomb te yàlla tuddee rek dina am jëkkër incha allah ah man na xam nga lan laa bëgg nga am jëkkër léegi ñaanal ma rek yow moom say ñaan dañ koy soxla fu mu toll xam nga ñaan gi nag dafay tombanti toujours ak amin borom parce que nit kenn ku nekk li nga bëgg di ko ñaanlu da ngay daw wuti ko man suma ma sañoon tey jii ah nga fanaan ci sa gannaaw jëkkër ndax nag fi mu toll nii jot na daal ci xanaa xamoon ni naara lu bëri pour nga mucc ci foo jaar nga am jëkkër gis nga jëkkër dafay protéger jigéen pour mu ci yu bëree bari te nag gis nga ni ma la gisee nii boo amoon jëkkër rek lu bari sens ci comme Mara dafa génn ci bëggum mu fekk ñu comme nii mu tooge xam nga la ma dama la fiy baal tuuti rek nga gànnaayoo ko bu ko defee nag comme jigéen nga te yu bëree bëri dafay war ci li lii somu trente mille la rek yaa ngi may dégg boo ko defee nga garder ko en attendant. ah la lu tuuti la ci suñ diggante ñun ñaar yaa ngi may dégg. ndax nag am na loo xam si daal maa ngi koy xalaat te bu sottee dinaa la ko wax incha allah bu Mara dikkee nuyu ma ko baax a baax. dina ko dégg ne ko ñëwoon naa merci merci beaucoup Nara. Eh, sant daal war nga ma koo def. sant ndax la dàqoon naan la ba noppi. merki bi dàqoon na la ba noppi. man ma waxtaan ak moom ba mu bàyyi ci kër gi. loo ko wax. ah maa waxtaan ak moom papis dafa wax ak man après si laa ñëw ci merki na waxa moom mais nag papis moom na la bàyyi rek. na la bàyyi nga mën a continuer fii si kër gi. si yoo koy jërëjëf laa lay wax. lii bi avant mu koy am noonu laa sonnee waaye tamit yow da ngaa war a wax papis de mu arrêté. xanaa waxati. dem na eh. bu may sangu sax day yéendu rek. yéendu ci xamul day yéendu waat. ah ah loolu ëpp na loolu ëpp na. da yéendu kay. mais nag dinaa waxtaan ak moom nag dinaa gën a waxtaan ak moom. moom moom dana la bàyyi moom ce que amul feebar nag ngeen yaakaar ne. <laughs> mënul ñàkk moom ci deret ji la nekk. feebar boobu dafa nekk ci deret ji moom bàyyiwul kenn. mais damaa tiit yi nekk six gel xam nga moom sama sama sama xarit la dara ump ma. moom daal nobaate rek képp ku mu gis dina la mën a jéem a iri def la li may def <laughs> bàyyi la te loolu baaxul te jigéen ñi dañ leen a war a fonk jox leen cër jox leen gëdd. mais nag du caagane yow koo soxlawul def ko lu neex. loolu baaxul tapis moom jigéen gëdd daal tapis moom moom li ma koy gis muy def joxul jigéen gëdd moom yaakaar ne jigéen moom laal rek mooy mooy lool mooy. moo tax yow bëgg. Mm. nga teye ko ne yaa ngi dégg bu nekkee ci kër gi. yow duggoo ci néeg bi sax bu la sax nga tëj bunt bi xaar bu mekki ne ñëw nga doo génn ndax xam naa ko dafa bëgg jigéen lool sax te sama waay la mais nag waruma ko wax nii sax ci kanamam. mais nag moom moo ko def yow moom ko rek dagan ndax yow dalaa yeb man dama koy dégg day wax say wax dalaa de. <laughs> moo tax yow yaa ko fonk mais moom fonk la. waaw ba moo tax ma bëgg yow. ñu mm. ñëw seet si ma gàlle. yow faaw ñu toog waxtaan fii nii bu fi nekkee du ma am nekk si lees. yow du ma la seet si ndànk bu baax laa la seet si. Ah, yaa wax loolu. li ma defal ne maam ma la fayee. dégg naa <laughs> yow daal ñëwul boo ñëwee dina waxtaan te xam naa nag waxtaan woowu noonu. Eh. waxtaan woowu. Eh, wax si wax dara. nan bàyyi boobu. waaw incha allah yow kay nee ma rek temps bi laa bëgg nga xam ban jour ma ñëw ñu waxtaan. jeex xam nga lu ma bëgg. Eh. lundi wala jeudi. lundi baax ba baax ma ka def dimanche rek ma ñew yéen. non defal lundi rek. ah. 16h. Mhm. top. ma ñew def sama gaayen nga. <laughs> ba maa ngi daw. Oh, ba ma ñu dox rek. yow daal bu wax dara contane na def ma sa xabu ko. na ko séti tak ko xare intérêt rek nak euh tay de yaay dama jógee kër kuro ma ni na fi jaar. alors Koura mbaa mu ngi ci jàmm. waaw yaay Koura maa nga fa rek yaay di doo ko ne quoi. daa def Koura daa dafa dafa dafa doy waar quoi. sa bopp bi moom. sa bopp bi yaay. mbaa du mujj mel na bopp waal sekk xam naa nag ci ah, waal de moom bosam rafet na moom. wat ko laa jëm. ëpp naa maa ngi laaj ndax ma wat ko wala ma bañ ko wat. ah bu mel ne bu waalee de mën nga koo bàyyi noonu. Mm. waaw bu waal de rafet na. Eh, waaw fexeel mu mel noonu rek. d'accord. yaay dama la bëggoon a laaj. Hmm. Euh, ana soxna mu ndaw loo ci wax. soxna mu ndaw de woote wu ma fa. Hmm. woote wu ma fa de am leen bañ ndax gis nga papier bi moo ko laajee ba léegi xam naa transfert bi ak école bi mu tàmm ba pare yaayam daal nee na daa mel ne sawaru ci. te ah. man lii tàmm naa ko wétaa bi tàmm naa ko. yaay. ñoom jàmm daal boo koy indee donte sa turandoo hmm. xale yi moom ñoo ko ñoo yore te xam nga damaa xaw a compliqué. yaay loolu lépp amul solo yow woote fa rek ndax wéetaay baaxul dégg nga amul benn wéetaay bu baax ndax saa boo wéetee rek di xalaat. lii tàmm naa ko wéetaay bi daal tàmm naa ko. yaay. tàmm naa ko. en tout cas li ma lay xamal mooy na nga woo soxna ma ndaw ma ñëw parce que yaay ah, lii c'est pas sûr de donc nekk ci kër yow rek moom yaay togga sa bopp. ay om lañ ngay togg wala nga génn fii di jënd ay reer. ah ma sama lekk bariwul. waaw mais yaay loolu daf ci baax loolu daf ci baax bu baax a baax. waaw ah, oh, loolu dëgg la moom waaye sama dëkkandoo yi. Mhm. ñoom day géey ak seen doom bi saa ma leen woowee. Mhm. dama leen yoon ni lu may dox ñoom ma koy doxal te duma ci am benn lii wax dëgg yàlla daanaka daal sonn ma ndax dëkkandoo yu baax. te daal man fi ne sax leneen a nekk sama sama xel mi. na mhm. nee a ci ne. yi ngay wax ay soxna bu ndaw yooyu yëpp waxuma ko. Mhm. man kay sama wéttal fi mu ni nii leen kese la damaa bëgg a dem jéem a dem dëkk ba sañ a fori dama bëgg a dem. Mhm. xool doomam ja wër ko xool ci lu mu nekk ndax comme deewul. yaay ma dox def ci ay jéego mënut a ñàkk. yaay man moom instant bi du ma la bàyyi ngay dem sañ a fori di wëri léegi da ngay bàyyi man ma dem té da nga nañu and yaay bal ma dem rek. ñee xam na leen ngay dem ñu neub ko buñ ko fekke ma nga fa ñu diko neub ak yoy ndax bañ bañ ma gis ko. ma ta man wuñ ma xam nañ ma bu baax suma démé luma ci luma ci mëna def dina ko def man man man ba gis ko. yaay bay ma rek ma and ak yow. yaay bi goor man jigen ko. Eh. te eh, man na fa man lu bari lo xam lo ko man. bu ma ba yow lima lay ñaan mo toog rek nga gérer. waaye Yacine demee dama ne woon nañ ma ko nañ ma ko nañ ma ko fi bàyyi ñu lànk yóbbu ko. man xam nga lu ma bëgg nga tegtal ma jox ma seen i lëkk coordonnées incha allah man dinaa dem ba sañ foor yi te dinaa ko bi doom jooju su fekkee mi ngi dund wala mu ngi sañ foor yi dinañ fexe ba gis ko andi ko fii ndax dégg nga. maa ah, ma ko defalee de loolu soo ma ko defalee waaw. màkk sa jël nga ma fa yóbbuwaat. doom jooju yaay dina ñëw. bu paree dina loolu kay boo ma ko defalee. dama sonn yaay dama jógee ah, moom. yaay yaay yi moom ak dof sa doom moom léegi mu dof yaay man xam naa léegi léegi mu dof quoi. ëpp naa def non sama si sa léegi mu dof parce que li nekk sama bopp bi attanatu ko. waaw yoon bi dana oyof. waaw maanaam dana oyof ndax sa xol a rafet. maman dem. waaw tey nag maa ma ma waa kër gi ma sama gi daa jeex. ah maçon yooyu laa ko jox maçon yooyu di liggéey foofu. ak café moom amuñu ci loolu. ah man nag de moom moom lu ma denc tar nit bëgg ko dama ko koy jox. ci dencal koo xam ne nii mos ta gis jaamu yàlla yu ko soxla loolu moom duma ko def waaw. am na jub jàpp. Nara. dugal eh. lu xew ah. yow guddi gi nga topp naa nakki nakki nakki lan